Habib Sy aussi Habib Habib Sy moo njëkk a nekk ministre. Habib boo bokkul ah et ba Habib Sy. Habib moom kenn xamul fu mu jógee. kenn xamul. <laughs> ah non ban kenn xamul fu mu jógee. waa mais il est de. ba candidat la te Habib. candidat par lan. Habib. Habib mu ne benn waay ji bu bokkee moom bàyyi. non Habib. bu demee Habib bu demee dina am de. ah ñi ko ñi ko ngem ba tax. amuñ dara ñooñu. ñi ko ngem ba am doole. nga ne. amuñ dara. ni ko ngemba ki ko ngemba am doole. ma ne koo mën a ngemba fi kenn xam nga am doole. Ah. le peuple. oui mais waaw mais mais mais ki ko ngemb fu mu. amul ñaari nit man ma demee jànke. Euh, kan moo ngemb Habib yow. Habib. waaw xaw ma ko bu la ki ko ngemb amul ñaari nit ki ko ngemb dafa am ma ne la amul ñaari nit. si man dama nekk ci terrain bi. ki ko booy boobu ñuy dégg. ma ne ñu ne ma ñu xam ñu ko fii. ban booy. ki nga bëgg a ñam ñabalal dafa am doole. kan Ousmane Sonko Ousmane moom sur le terrain il est connu sur l'ensemble du territoire national. yore ses nangul ko. dama ne yore ko lu ne ba ñu ma ko de. Ousmane Ousmane Ousmane Sonko a la locomotive de Yewwi am nañu dégg dégg monsieur le maire monsieur le député ils lui xamuñu ko ah. ay xale yu taxaw di saaga nit ñi di taal kër El Hadj di taal Auchan yi. en tout ki ko ngeen ba am na doole te ay bandi ay voyu. Habib bu bokkee am dara ay voyu ay bandi di taal. ñu ne ko dee sa yaay juraat yooyu bu dee ngeen fa loolu tax nit ci bëgg la xam lu may wax ñun bëgguñ ko di fitna kooku ngeen jox di fitna la ñun suñu village bii. waaw mais am na ñu la xool mais am na ñu ko bëgg. cere lañu ak meew reer wala ñu wuti Dakar ñu taluñu ay reyante ñooñu kenn bëggu bëgguñu rekk fi nit. mais Habib moom Habib bu bokkee am dara. abi abi sama grand yàlla na am mais da nga xam ne ku taxaw ne man jiw bu ñëwee ma bàyyi ci ne même pas sérieux ah, mais c'est le deal waaw taxaw Sénégal yëpp la dul nga damay réew mi waaye may mu ne bu bëggee ma bàyyi yow looy laajee ko ah mais c'est bu la bu dee may mu ne moo la jox nag ah, waaw ku ko jox kay ka jox rek moom moom ngay dawal mais mais su ma la dénkee sama chaise su ma ñëwee kay nga jox ma sama chaise waaw d'accord waaye réew mi moo te boo dafa ko respecté mu jël pouvoir bi euh, par une coalition. na ko junniy junniy coalition. parrainé parrainé par un homme. mais euh, populaire il s'est décrédibilisé je l'aime bien def nii dem jébbalu ci benn booy du ko amal benn njëriñ taxaw ma ne booy boobu bu ñëwee woon ma bàyyi. Sénégal yi dañ ko ci loolu. mais c'est de c'est de la sagesse c'est de la sagesse place bi man du ma dara man suq laa man prénom laa kii bu ñëwee rek ma effacé c'est de la sagesse kooku boo ko waxee Sénégalais yi. mais c'est de la sagesse kooku mooy yow doo candidat. il y a une part de sagesse en lui. yow doo candidat candidat. non il y a une part de sagesse en lui yow prénom nga xam ne candidat d'après yow doo candidat. ko jox koo xam ni. de. ma Sénégal du jox du jox réew koo xam ni dafay nekkal keneen fii kenn du fi buur fii doomu yàlla amu fi yàlla buur bi rek moo fi nekk ba tax kenn bu ne diw mi fal leen ko mais man sama problème Amadou Ba loolu ak Macky Sall Macky bi ne ma ne ko président moom moo ñu ñoo ko bennoo yaay sunu xarit mais président suma parti yow la gën a bëgg man la gën a bëgg ne yow kon suma parti man la bëgg ma nekk président yow sa parti yow la bëgg nekk président comme jeexal nga sa doon ci tànnal suñu passé nee na man lay samp moo tax ñu ne ñu préparé démb. tey soog a ñëw merci jërëjëf préparé démb tey soog a